mbokk yi jégaluwaat xarala la ah ngeen baal nu danoo nekkoon ci l'Oeil du Tigre di waxtaane làmb te làmb xale am ci solo lool doon gone am ci solo lool moo tax ñu invité ay xale yoo xamante ne ni toll nañ ci war koo mën a def di ko def ndaxte ñu nu invité ku ci gëna yàgg ci làmb Moussa Ndoye la ah ñi si des ay xale lañu. ñu ngi ci biir làmb ñi ñu ngi leen di ñaanal bu baax ndaxte lii lépp ah ñoom danoo am seen écurie danoo tasoon kii ne fee kii ne fee kii ne fee waaye ñu fexe ba dajaloo doon benn loolu daf cee am solo ñoom ñëpp yaraax ñoo ànd dégg nañ léegi mu Ndoye mu nuyu la maire monsieur Mbeng waaw maire bu fa yàgg la waaye nag kooku dafa donn foofu mu toog waaw baayam bokkoon na ci ñi nga xamante ni ñoo gënoon a feeñ ci UPS ak parti socialiste ci la juddu ca loolu la xam te ba tey jii ñu ngi góor góorgóorlu di gën di liggéey monsieur Mbengue ñu ngi lay nuyu bu baax euh, Weuz yaa toll woon ci léegi mais xam nga lu ma leen bëgg a seen ndomba yi ngeen takk ngeen tekki ko ngeen dugal benn rek parce que yéen a ngi coupé suñu courant. wàññi wàññi benn gaaw wàññi leen wàññi leen benn benn benn kii bi. kan la ba loosoo ñëw parce que sax borom mi wax. loosoo nuyu loosoo nuyu nañ <laughs> parce que waa merci ah booy. merci loosoo nuyu maa lay fay Père Bécaye di la ñaanal jàmm ak Modou Mbaye ak Fatima xamante moom dafa sama tur bi dafa neex quoi ñu Moussa Ndoye caat <laughs> ndox mi tàng na waaw gis nga di nuyu tamit xam nga monde entier quoi rawatina suñu sëriñ sëñ Abdou Karim Mbacké dawar ma kari man axla di nuyu sama yaay itam bu baax a baax di nuyu sama patron sëriñ Diouf xam nga di nuyu sama mbokk soose yi maa di man nicole béer ngaan kontaan la nga nuyu sa patron waaw sa patron si la Ah. da ngay liggéey. waaw ah. looy man laa quoi. ah eh, ay bagages businessman yaatu <laughs> <laughs> di waaw di sama yaay kay nuyu. di di sama mbokku soose yi quoi di wax ne mani mani bel ngal konto la ngal jàll ngal jàll al di ma jikandoo alim so dowala alim so dowala anim pek bekay fatima modou mbay anim mbégol bel bejan waaw man ni ko mun nga daawoon daa daangal kontoon la ngaa jaay la. jërëjëf albarka kontaan nañu ci yow ah. albarka léegi Mamadou Karajo mu ne doon nga reporté benn mbër bu tudd Asip Asip waaw am na Asip am na ah. mais nanu nanu gërëm benn doomu Sénégal moo jënd bisis waa sunu waa sunu sunu mooy sunu assurance daal. waaw mais ñooñu ñoom ñoo dem jënd business. loolu mooy liggéey business banque réew mi la waaw. ah loolu lañ bëgg. monsieur jon xam naa ko sama xarit la. yàlla na ko yàlla moo tax waaw nuyu naa la mu ngi lay gërëm bu baax ci loolu loolu loolu lañu soxla ci réew mi réew mi dafa war a yokk dafa war a dem yoonam ñoo ñooñu lañu bëgg waaw c'est l'ami de Abdou Aziz macha allah notre frère voilà. ñu ngi koy béggee bu baax a baax a baax chers amis téléspectateurs ñu leen di wax benn nouvelle boo xamante ne ni wàcc na ci émission bi ñu leen di wax ne am na benn numéro 76 025 06 04 képp koo xamante ne ni am nga image bu rafet ci làmb moo xam muy image boo xam ñaari xale dañ ciy bëre wala ñaari mag muy chute boo xam spectaculaire na nga envoyé ñu ko ci 76 025 06 04 foo mun a nekk ci àdduna. jarul ñu ci def sama voix. non ja waaw mais bu leen neexee aussi ngeen monté ko ak voix per Bécaye âge Bécaye lamb lépp luñ ci def war nañ ko monté ak sa voix. ndax bu làmb ah, yegg si fii ba lépp lu am ci làmb yow la tey jii bu ñu monté sa âge yow lu am ci Sénégal dañ ci war a monté sa voix ndax yaa ko liggéey ci réew mi. âge yaay la am waaye tàcc leen ma loolu <laughs> léegi nag mbokk yi day dem ci seen rubrique seen champion. seen champion ñu ñu dem. aca Moustapha yow léegi mën ngaa bañ a ñëwati ci émission bi. mais mais mais moo tey dañ maa demandé ma ma déplacé wu quoi. en plus je suis bien sapé en plus je suis bien sapé par mon frère. defal lu la neex defal lu la neex fii la ma génne tey tenue bu rafet bi. gis ngeen ko fi ma génne tey. sama doom baay Silla mu ngi HLM te fii la ma génnee mais Diop Daaro il faut nga ñëw ci lii borom yëmbal foog ñu ñëwal la cili question yi Modou. acca ñu dem. qui suis mooy mooy kan. j'ai battu Ñangoor. maa daan Ñangoor. j'ai battu tas sa yaram. maa daan ku xam rek da ngay bës. dégg nga ku xam ki muy wax j'ai mobile 2. maa daan mobile 2. j'ai battu Lay Copet. maa daan Lay Copet. j'ai battu Mapol. maa daan Mapol. man la kan. qui suis maay kan ayca baamtuwaat leen ko ñu gën a leerlu ci ñoom maa daan ah non du moom ayca na keneen wax eau de bës eau chaude waxal ndax mu tàng eau chaude bu da doon xool ci écran bi de euh, daan ñun ñëpp waaw mooy kan ki wax daan na ñàngoor daan na taseeram daan na lay coppet daan na ma daan na mobile 2 daan na mobile 2 waaw waaw mooy kan. yow yow Wes bokkutoo. soq. du soq déedéet du soq du soq du soq. du soq réponse yow bokkutoo léegi yéen ñaar. taxaw non non. as non non soq dafa am bëri la góor soq. merci góor soq. mais non mais non non mais s'il vous plaît. moi je pense que. góor soq la waaw. c'est cest à loolu dafa jar bàyyi xel mbëri dañuy bokk pour des fois ba pare az ah, ah Moussa. Moussa tekki sa dara. Ah, waaw waaw mais tekki ko. <laughs> yaa ngi télévision. ayca pour man da nga ah, déglu musique Goro Sock. ayca ñëwal vite man la kan qui suis-je je de lutte. j'ai organisé huit journées en deux mille vingt et un deux mille saison ren bi organisé naa huit journées. Mm-hmm. je je compte clôturer ma saison le treize août deux vingt deux. le treize août laay teg sama sama saison. Ma huitième journée opposera Jaay Doole contre Sakadior Junior. sama dernière journée Jaay Doole ak Sakadior Junior ñoo koy bëree. maay kan. sans production. réponse fausse. waaw. atia Jamaïcain. ah Jamaïcain. da ngay bës da ngay bës bu dee da ngay bës. waaw atia. Bamba Faye. non non non. réponse fausse. moo ñëwaat si question bi. parce que day organiser question bi bu baax bu baax. Serigne Mournia. réponse juste. <laughs> réponse juste bës jàmbaar. sànq ku tur eh, bon dama leen di wax leen lii. lii ma leen di lii ñu leen di def nii. Mhm. da KPE daf cee joxe xaalis. six cent mille francs ku gagné par tey ah bu ko kenn yaakaar yóbbu. dañuy def final bi après. <laughs> un million deux cent la. ci lii. ku ëpp les points ak ku dóor fële ba ëpp force de frappe. bu décembre jeex jotee. fin d'année bi ku ëpp ci ñi ñuy invité. yaay gagné xaalis. loolu kooku avance benn combat la de. man samay cinq ñëw. Ah, moo yaa ngi ah. ayca ñu dem. Boy Faye et de quelle écurie. Dóor Dóoraat. mu ngi ko mu ngi mais. Eh, eh. man ni ko man man ni ko yow laa faral yow ko ah, trouvé yow tamit. ñu dem ñu dem. moom tur bi nag xaw na Zambala. Zambala. et de quelle écurie. écrit Souleyman Gueye réponse eh, fausse pour euh, Weuz Diambar keneen ku ci euh, réponse fausse pour Weuz Diambar réponse juste pour Capiara eh, mais euh, eh, et puis ñoom ñuy wax Zambala <laughs> Zambala Zambala mhm. benn <laughs> Bousso di Mbax kii aventure yooyu. aventure la livre aventure. livre aventure yooyu bande dessinée. bande dessinée bande dessinée. moo amoon ku tuddoon Zambala. waaw waaye lamb nag ñoom doon woon neex lu leen neex la ñuy wax. lu leen neex nañ ko tuddee Zambala bon du Zambala Zambala la. Zambala ayca jaw Mbaye et de quel. du Mbaye Diaw. Mbaye Diaw. moom la de. mbay Diaw. Mbaye ñu ne ah man kon aw ma Mbaye Diaw ah. maa ngi question. et eh, <laughs> waaw ayca. Fatima ñu dem ayca bisimilah. ñu ñëw ci Mbaye Diaw kooku ban écurie la bokk mais moom moo mën naa ko wax. ayca ban écurie. Ndiaga Sarr Fatima. Hmm? sa question yi nëbbu ko. non gisul. kii mi ngi gis day gis. am <laughs> na gis gis am na fu muy gis am na si am na fu muy gis. non moo gisul. Eh, mais gagné na daal mënoo ma mënoo ma ci moom nii nii. Eh, mënoo ma ci jàmbaar moo ko trouvé. Euh, Mbaye Diaw mi ngi nekk. ci écurie yow woyu nga. non non du ma woyu. écurie Ndiaga Sarr. ay ca bisimilah. parce que kii xam non non kii kii sama doom ndey la. Fatima. Fatima sori ko. baa ma sori ko baa ma taxaw. Fatima kay da ngay tricher. <laughs> mais mais monsieur Gaspy. sixième question. waaw Mbaye Tine Junior. et de quelle écurie. eh bii doxul de maam ko bës mooy wax. Moussa Ndoye moo bës. Moussa Ndoye moo bës. Moussa Ndoye kan la. Balla Mbaye Tine Junior waaw. Ikiri kii la nekk Ikiri géej waay. ban ban Ikiri foose na foose Mor Fadam. waaw mais man non dafa si noppi bësoo de. par benn benn lañ la ko Moussa Ndoye waxal kan ma ko tur muy ay waxal. nga bàyyi loo wax. écurie waalo. jaajëf gis nga kii xamu ko. écurie géej waay doxul de mais écurie géej waay xamul de mënoo bàyyi di njëkkante. waa xaar écurie Mor Faram la nekk. xaar écurie waalo la nekk. loo soo écurie waalo la nekk. écurie waalo la nekk. Alioune Seye moom Alioune Seye man ko xaw ma ko sax. waa bii nag moom am ngeen wax ay léegi nag bii moom sujet d'actualité la xam nga Père moom ndaanaan la le Sénégal va participer en Turquie en lutte olympique du 8 au 18 août waaw Aïcha Sénégal daa war a dem Turquie ci benn compétition boo xamante ne daf fay am lutte olympique olympique mhm. du 8 au 18 août 2022 mu ne question bi lii di ñëw la non Aïcha Aïcha les athlètes sénégalais sont au nombre de combien ñaata athlète sénégalais ñoo war a dem participer ci équipe boobu. équipe boobu ñaata athlète la war a mais mais jox leen chiffre yi. non non équipe boobu ñaata athlète la ah, war a yomb. cinq. réponse juste pour Wëz jàmbaar cinq athlètes. Wëz <laughs> nag moo ko téye. Wëz <laughs> vingt points. moo éliminer l'intrus. lii ñu lii ñu leen di wax tur yi ñu leen di wax dafa am benn tur boo xamante ne bokkul ci liste. listu nit yi. te mi ngi ci biir. il faut ngeen xam tur bi. waaw éliminer l'intrus dans la composition des athlètes sénégalais. ñi ay athlètes lañ. Mhm. Mhm. Mhm. athlète nag lu ne ngi ci. ça pas dire athlète kuy daw athlète moom lu ne ngi ci. ok ñu dem. Anta Sambou. Safiatou Goudiaby. Mamadou Diouf. Ama Baldé. Omar Faye. Ama Baldé l'intrus c'est qui. Ama Balde Ama Balde réponse juste pour Weuz Diamba. Weuz Diamba Weuz daal Weuz eh, daal tey fii moo fi tey fii la par. Moodu moom du xaar ñu laajte. ah non waaw ah, damay nit soo teelee comprendre. boo ko xamee yow boo commencé rek boo ko xamee mësal. soo teelee comprendre c'est-à-dire Weuz Diamba félicitations parce que day suivre. moom naa la damay suivre émission bi damay suivre émission bi émission bi ko moo tax. damay suivre émission bi non damay suivre émission bi de. non comprendre la yow lamb xamoo ci dara. bët ñëwul dara sànq bi kiy dóoree dañ ne ko daan ko dóor mu dem. mais mais mais l'occasion ah dañu def vite fait Père Bécaye mais j'étais à la remise du drapeau ministère des sports ma gis gars yi ñu naan xale ñi ñi dem euh, euh, lutte kii bi olympique bi mais dañu bëgg a ñëw ci plateau bi Mbaye Fall dégg nga ko waaw lutte olympique lutte olympique ñu ne dañu bëgg ñu dañoo bëgg a ñëw ci plateau bi waaw merci on est souhaite bonne chance d'abord seede ci turki koña nan ñëw bonne chance bienvenue ah, nan ñëw ne leen bienvenue et bonne chance des fois aussi comme question bi léegi mën nañoo mën nañ ci lii sa équipe bu dee équipe nationale olympique la. Mhm. ñu limal leen mbër yi ci nekk des fois ngeen dégg ci turu lutte avec frappe dañ ciy bokk. Mhm. comme le cas Papa Sow. demoon na équipe nationale olympique. olympique ok ayca ñu dem Fatima. qui est le coach de l'équipe nationale de la lutte masculine olympique du Sénégal. mu ne kan mooy coach équipe nationale. Ah, góor ñi. lutte olympique mooy li ñu doon waxtaanee léegi olympique. lutte olympique ah waaw lutte olympique ma ma joxe tur yi wala. Mhm. wala kon day yomb da nga leen bëgg a jàppale nag. Ah, non non nga jàppale leen kay. waaw joxal tur yi joxal ñaar joxal tur yi. joxal ah, tur yi. bon Lassana Coly wala Jules Pascal Senghor. kan moo ci yore mooy entraîneur. Jules Pascal Senghor ah Jules. réponse juste. réponse juste mais bi doxul de. il est à combien il est à points. mais mi ngi soog a dox. man du dëgg waxe ba léegi maa ngi bës mais demul. yow da kooku mooy Pascal. moom mooy moo yore équipe bu olympique waaw waa ju baax la et puis yor xale yi ñoom ñii ñëpp ñu félicité ay baax la ñu ngi leen di félicité Mbaye Fall ko ñu ne lutte olympique ñoom bëgg nañ ñëw. lutte olympique et puis am na beneen équipe bu nu bu nu waxante woon ñoom it bëgg nañ fi ñëw. non non gars yi naa ay comédiens yoo xam ne nee ma dañoo bëgg a ñëw. xam na làmb xam nañu affaire bi. question ñu ngi leen di xam fii de Père Bécaye. Ah. ba tey waaw. numéro boobu rek gars yi bàyyi ko. waaw léegi kon day leen woote ci numéro boobu ah. numéro bi mooy. 76 cinq 76 025 06 04. waa ku am image yu bëri. Mhm. làmb nga yónnee nu ah ñu mën ko boole ci dundal zapping bi ah. mhm. waa léegi deuxième partie kii kan la kii kan la photo bi ngeen di xool kii kan la nag mhm. photo bi ngeen di xool wax ñu kan la kii ñu leen woon kan <laughs> kii kan la waaw Ousseynou non non réponse fausse yow léegi bokkatoo. <laughs> non maanaam dootoo yow dootoo. la kii la bokkatoo. Modou ki ñuy wane ndaanal la te mbër yëpp war ngeen koo xam. <laughs> bëggoon naa leen ko yombalal léegi sax. père ba leen koy bu leen koy yombalal. naanaan ci ban anam. ah déedéet ci anam bi ngeen nekk. yéen ay mbër ngeen war ngeen a xam kii. kii promoteur la woon. ah promoteur. kii lii stade Iba Mar Diop la moom mii lañ tuddee woon drapeau bi kii kan la. boo ko trouvé moom ma kaalaal moom. wës bii moom boo ko trouvé moom. ah xool bu baax. wës wës waxal. kii ci. non père père non non non ma bàyyi. waaw joxe indice suspense bi kii moo bës. suspense bi yow la ñuy déglu wax benn indice rek de. Ah? joxel benn indice rek. Eh, pour lan du ma jox <laughs> loolu dina yomb. Eh, yaa ngi xool sa téléphone. non non barki yàlla Moussa Ndoye teg téléphone. ko xam. waaw kan moo ko ah. bokk na ci lu génne motloo ci làmb. téléspectateurs yi leen seen seen avis jox leen ma kii kan la. et puis kii sama copain la. gars yi nu bekkaay la. <laughs> ndaanaan la ah réponse fausse pour wóor jàmbaar yow bokkatoo. yow bokkatoo léegi ñaar la kii. kii dama koy tudd lu bari. jax na da koy tudd lu bari. kii dama koy tudd lu bari. da koy tudd lu bari. maa ko siiwal. léegi ci bon domaine la yow boo kii ci télévision lay liggéey. mu yomb e yombul bës tax tax. boo nga pare nga boo bësee doo trouvé. waxal da ngay bës ci télévision lay liggéey ci télévision lay liggéey waxal waxal gaaw. xulli. <laughs> kii ci télévision waxal yaay wax. Eh, bon ma yombalaat non non non kii sax non non non non non non non non yow boo ko def nañ tour ñëpp wax nañ foofu defal tour bi caatu yaraax waxal kan après Moussa Ndoye mi des na parce que Moussa waxagul et puis caatu yaraax kii da lay kii da lay wane lu bari. non non kay. waaw mais duñu may mën ma wax. mën nañu may ma wax. ba xam kay non yow Moussa Bosse. Karajo. kii mooy Karajo. moo nekk ci ginnaaw mais tuddul Karajo ah Babacar. Babacar mu ngi wane boppam mu ngi wane boppam. l'homme de l'ombre. ah kooku dama leen bëggoon wax gis ngeen ko léegi. gis nga ma gëstu. yéen <laughs> lii bi ci bi quoi l'homme de Bantamba. kii jigéen bi laa liir quoi. ah xale bu yaru. kenn grand réalisateur. yàlla ko ba ko sax gërëm yàlla ko yàlla la fa cat. amiin liggéeykat la. lu bari ah, ci bi laa kii li mu mën ci wàllu lamb ci télévision. Ah. yombul. non li ma kaay mbay nii moo gën moo dul yombul xalaat moo dul ñu gën le meilleur daal. c'est le meilleur yaru na mooy sama mag waaw damay dem làmb. Moussa damay dem làmb. waaw jóge làmb ñëw jël matériel bi. Mhm. jël puce bi jox ko dem sama kër tëdd di nelaw monte dimanche lundi mhm. ba mardi. toog nii croiser les bras. ku dugg top 5 moo la dugal. waaw mu def yëpp dugal leen top 5 génn image toujours. yenn saa yi ku génn image boobu nga xas. ma fekk <laughs> damaa bëgg Karajo sa image bi nga génne waat ko am ñaari moo yu ma si sànni. waaw ki mooy Karajo Karajo sa image bi. voilà mbër yi yéen ñi may wax Modou Mbaye nga soxor yaa ma dugal image du jour ma dugal top 5 xàmme leen ko. <laughs> kii la xool leen kii la. <laughs> bu moom waaw baaxee moom la. waaw su bandamba neexee moom la bu yàqoo man la. mi ngi noonu. ayca kii kan la. kii kan la ba tey. ñu dem. kii. <laughs> ah non eh, yow Karajo doo fi génnee sa bopp bi yow ñu xool keneen. <laughs> non Karajo tey moo fi nekk. kii. kan ah. Malick Ngom. réponse juste pour euh, répondre ah mais yow da nga garaaw ah. <laughs> Euh, Malick a ngi noonu l'arbitre ah arbitre làmb. yéen ñëpp arbitre na leen. waaw damay jëli maay machine la. et eh, Mbaye bii ngay indi nii. li may ma cee wax Malick a ngi nii nit ku yaru la uh-huh. nit ku baax la yàggul ci làmb yàgg na ci làmb xale la et puis vraiment arbitrage mu koy teg ci yoon yéen a ngi fàttaliku jour bi nga xamante ni ëmm seen ah. daanu na mm-hmm. mu daw récupéré ko ah mm-hmm. jéem génne bagage yi yëpp ma wax ci moom tuuti waaw arbitre bu am compréhension ak mbër yi la lu ngeen xam ci moom wax mbër boo xamante yi nii day ànd ak ne lay jël mm-hmm. dafa dal arbitre bu dal la di waxtaan ak yow di reetaan mais yeneen arbitre dañuy fu ñaareel yi kii moom ku mën liggéeyam te da koy teg da koy teg ci yoon da koy teg ci yoon soo nekkul ci yoon da lay woo téléphone conseil ni la tey li nga def ak nanga bu ko defati ay a kuy xeexal mbëri moo nit ku baax la nit simple ak la nit day def lu baax xarit kii dafa baax ba ñi ngay ñëkk gis soo gisee xale la. compréhension bi tolloo ak ñoom mentalité. li ñuy xalaat daf ñuy fekk si suñu lii wax ñu dëgg. ñu comprendre ko. samay waay la nit ku baax la Malick Babacar Sitor. Mhm. Ah, gaa yëpp ak Mamadou am na ko ci tur. waaw waaw ah, Mamadou mooy ñoom ay nit ñu baax et puis leen di comprendre. waaw làmb dafa metti metti dafa jafe. wàccaayam mhm. arbitre ko yomb waaw. man dinaa leen di sànni ay xeer. Mhm. ay temps léegi sànneetuma leen xeer. <laughs> kii kan la léegi dama la. Eh, kii kan la bii. duma ci wax waaye. kii kan moom pose ko rek père. waaw yow wës dindi sa lii. kii kan la kii kan la kii kan waaw guy. réponse juste Moussa Ndoye. guy ah. doxul doxul fan. Eh, yow bësal ko bës naa ba sonn. non woon bës. Hmm. sama xarit bi. waaw kuy géey ngi noonu moom it di ci làmb ji laa ko la ma fekk. waaw di dër dër borom canaba. waaw adversaire Moussa Ndoye di ñàngal. waaw barki dem maa ngi koy nuyoo maa ngi koy nuyoo passage. di jaale waale sax eh, suñu benn sëriñ Pape Gueye. moom la soxnaam wàññeeku. ah bon waaw canaba bi mu ñëwee yoon dama nuyu ama ak ci tag rek suba gi. ñu mooy guy gi ñëw na fi démb si guddi gi. li mu li mu bu mu li mu njëkk laaj mooy ana Moussa Ndoye. ndeysaan parce que xam ne kooku canabal nekk daf moo génn yow mosoo bëre guur gi de. non non mosuñu bëre. dañoo war a bëre ngeen laale ah dañoo war a bëre ah, combat la. sëriñ def na li gën kay. léegi mën a combat <laughs> ah, xool guy gi parce que guy gi amul combat te guy gi mbër la. boroom canaba waaw. te yow yow it zos zos nee na da nga ko xaw a ah. waaw zos loolu la wax. mu ne da nga daw avance am. waaw man moom mooy li ma wax rek sama ñi samay rakk lañ zos moom comme loolu wax pare na waaw pare naa. pare nga pour sos. pour pour sos sos yaa ko sombi ah. da nga koy may sans da nga koy may sans. suuf <laughs> may ko bàyyi li nga fu la sos jàppee. <laughs> sos moo koy may sans. sosay may kan sans koy may sans. Moussa Ndoye may sans pour bëri moom. ah bon waaw maa ngi may sans <laughs> eh, sos bu ko wuyu. mais sos moo fi taxaw ne moom talu kenn koy gañ. waaw. morom moo koy may sans. wax na dëgg kii kan la. kii kan la. kii kan la. ah non kii moom. est-ce que ah, ah, ak yéen a bi war ngeen koo xam. wax dëgg yàlla ndaxte kii ku baax ci réew mi waajaa <laughs> nañ ko yu mag ci mhm. nañ ko yu baax ah borom xam-xam. borom xam-xam bi adduna bi yëpp reconnaître. Mhm. Mhm. Ah. jërëjëf. waaw waxal gaaw waxal gaaw. Eh, da ngay wax Abdou Thiam merci. Eh, da ngay wax ah ba lu fontoo. kii moo Mamadou Mambay Diallo jërëjëf xam-xam la ku liggéey ci réew mi adduna bi yëpp reconnaître ko YouTube baa ngi ndaw yëpp di ko roy YouTube bi trouvé nañ ko <laughs> ñoom trouvé nañ ko ah oui ñoom dañ koy trouvé kay fii quoi fii daanaka daanaka kay seetaan Lamine Gueye Lamine ah, du Lamine Gueye mm-hmm. wës trouvé na ko mais xam fàtte bi. waaw fi waroo fàtte tur bi parce que tur am na fu mu. tudde nañ ko. jàng naa ko ci CM2. Mouhamadou Mbaye Mame Mbaye Diallo trouvé na ko de. Lamine Thiam Lamine Thiam ay yow Lamine Thiam man ay yow. yaa tamit trouvé na ko kuy Lamine Thiam. Ah? ay yow dundatul waaw. la. Lamine Diack. du Lamine Diack kii. mook Senghor xaw na noo jongante jongante yu xaw a metti sax. waaw te wax na ay histoire yu neex ci politique gu Sénégal bàyyi ko fi. ñu koy nettali ba tey. Blaise Diagne du Blaise Diagne. te kii waxoon na ne. Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop ki mooy Cheikh Anta Diop waaw moo créé woon parti bu ñu tudd RND. ah Cheikh Anta Diop. moom mooy moom émission boobu nga wax dama ko déglu quoi. li nga wax nii. kajoor kajoor daa am ko si doon wax benn paa. liggéeyal réewam la. mbaa ko la. silmaxa et puis mbokki mbokki njabootu Serigne Touba. baax la maam Cheikh Anta lañ ko tuddee. mi ngi noonu voilà kooku mooy Cheikh Anta mu doon nag borom xam-xam bu doon gëstu di créer scientifique la lépp la. Mhm. yu bari moo ko def boo demee université fee am na fa laboratoire boo xamante ne nii. moom moo ko fa bàyyi nan ko ñaanal dégg ngeen ngeen ñaanal ko yàlla xale ko àjjana na ko yàlla xale àjjana nit ku baax la bon léegi ñu ñëw ci zapping ak karaajo zapping ñu xool mais Moussa Ndoye gars yi nee nañ Moussa Ndoye jën kay de jën kay léegi nag ñu passé nag ñu ñëw nag yéen léegi jën kay la ñu wax buñ la ko yàlla ko jën ah? kay jël na ko jël na ko jël na ko jël na ko ndax da koy daan tegal fees da koy daan wala lan nday jeex wala lan ardo mañik ardo mañik penalty la gars yi nee nañ Mbour Ndom penalty la Sala bi ngeen koy wax laa ilaaha illallaah ardo ardo ardo daanu na daanu na wër na ko ndombo dóor daan. mooy juddu déglu mooy xale bi Aziz di rakku Jamil Abdoul Aziz Junior rakku Jamil Papa Malick Sy di rakku Jamil Mame Gorgui Ndiaye talibé Jamil Cheikh Tidiane Chérif Aboul Abbas Ahmed Tidiane mooy xutbul maktum tamay xutbul raban vingt secondes laa ko may Mm. su ñëwul yenn personne fi laa ko fekk daan ko. am fi di song dootu ko doole kii li muy wax nii. Ah. da koo gëmul. man li ma ko ba léegi teggu ma sama tànk. Ah. sama gëm-gëm la. ma a daan. boobu jàppee rey ma. te li ma la wax gëmoo ko si dinaa la duma doog lay daan. mu lay neex mu lay naqari. waaw waa zapping zapping baa ngi noonu KPE ngi noonu Moget ngi noonu ah ñii ñëpp ñuy liggéey zapping bi nag gis ngeen ko am na ci yu neex yu reelu ah. am na ci yu garaaw il faut ak ñoo ko bàyyi amatuñu doole yi tëdd sax ña ngay xàcc di bëgg a ak yéeri Ah, ñooñu gis nañ leen gis nañ maam góor gi Ndiaye ah, ku taxaw ci wetam noonu te kooku mooy booy tuuf ah, booy séeréer booy séeréer njaareem la ne woon bëri na ci ay jamonoy tournoi ayof yooyu nga xam ne réew yi Afrique yi nii yëpp ci leen bokkoon kooku ñu ngi koy ñaanal moom tamit booy séeréer daana nuy waxtaan lu bari ci biir làmb gis ngeen maam góor gi Pape Diop a ngi ci gis ngeen ci bi nuy teg affaire Pape Diop président boobu tam jugal ci sama voix Pape Diop champion moo wax noonu wax bu neex la wax. waaw ci biir reportage bi. waaw moog alaaji Papa Dieng alaaji dégg nga Pape Diop moo tontu. yooyu dafay reportage yooyu daf ciy neex. ah xam nga alaaji Papa Dieng da koy sot sotoo. boo waxee mu ñëw ah? ah. boo waxee mu ñëw et puis day da du ñuy waxtaan nii ah dañuy toog rek commencer reporter mais foo ñëw rek. Mhm, ci football bi day comprendre football waaw moom ñu ñaanal ko ah. ah, boo duggee bu ma duggee ci football bu ma duggee coupe du monde coupe 74 ak yooyu juddoogu leen yëpp. mais père da ci ñëwaat mais boobu neexoon na de boobu na bokk ci question yi de ban combat la woon. <laughs> boobu waaw sama xel ñaaw na bi bon man loolu ñëpp ko xam loolu ñëpp xam nañ ko xam nañ ko Yékini la léegi lu tax xelam ñaaw maam pour mu yàqu quoi lan lan moo dafa amoon dafa amoon dafa amoon non lamb ji dafa amoon mais na leen waxtaan déglu leen déglu leen li mu leen di laaj yéen mu leen noppi mu wax déglu leen li mu leen di laaj <laughs> xamul waral lool lu tax xelam ñaaw xamul waral lool ah. parce que lamb ah. kii lamb kii la woon am na benn lamb ju fi am. bañ a kan ak kan waaw ci la ci koñ laa jëm lamb kii la woon. réponse fausse. déedéet déedéet déedéet amul xalaat amul xalaat na jàll fii kaana du xalaat wës demal xamu ko kii la kaana du xalaat ñu dem yow combat Gris Bordeaux ak Baboy déedéet Baboy Moustapha Gueye Baboy Moustapha Gueye la Baboy Moustapha Gueye si toor moo ko doon seen deuxième combat dafa taxaw Moustapha Gueye taxaw bi baabooy déplacé woo. Tapha Gueye ñëw taxaw fi baabooy taxawoon. Mm-hmm. comprendre mm-hmm. baabooy ñëw moom tamit kenn xaw xamul lu muy def. ah kenn moomul làmb ji kenn moomul eh, géew bi Tapha Gueye ñëw taxaw moom jàkkaarloo penku. <laughs> léegi ñooñu bi baabooy ñëwaat ni maa moom penku bi mu Tapha ni ko foofu ko moomee. <laughs> moom moo penku bi fii laay taxaw baabooy taxaw ci ginnaawam. si toor ne leen eh bu ngeen waxee damay sifflé ah. Mm-hmm. ma ne ma taxaw ma ne si toor ji ma wër si rek sifflé woon ni baabooy comme que mi ngi ci ginnaaw Tafa. daw di jàpp ci tànk Tafa daaneel ko. mu jeex. non làmb ci. làmb xam ni loolu kenn du ko homologué. après nag waa CNG di gis xam ne dañuy renvoyé làmb boobu moo tax si toor moo doon arbitré Yékini ak Bombardier. sa xel bi Bombardier ne moom it du dem fee. moo waral di. sa xel ñaaw sa xel ñaaw. <laughs> xel ñaaw. sunu sunu ak Jóob ak alaaj Papa Dieng Papa Dieng xam li may wax mu ne oh. <laughs> amoon na ñëw. mu ne amoon na fi. amoon na <laughs> ne amoon na Papa Pape Diop ni dëgg la amoon na fi. loolu moo ko waral mooy Pape Diop yow président assemblée ah astafurlah <laughs> président ancien président assemblée waaw. xelu nit ñi ñaaw man waxuma la de. Ah. xelu nit ñi ñoo ñaaw. gars yi ñoo aay. waa les les ñeneen ñi quoi. les yeewi laa ñu. léegi Yewwi laa ñoo ay ñoo ko ci dugal. la seen xel ñaaw waaye. waaw nee na Amine bu yàgg bi nga nee Pape président de l'Assemblée nee na Amine bu yàgg. ndeysaan ay HBK ci réew la nekk ah bon léegi. dana ñëw nag ci mbër yi nag. waaw te da ngaa invité ay ndaanaan HBK. waaw léegi nag Mamadou yaay wax ak ñoom. mais père Moussa Ndoye comme ci élection lañ jógee. pourquoi actualité politique bi duggaale wu ci question yi. actualité. politique bi ndax duggul ci question yi. waaw c'est vrai mais. waaw mais xam nga. prochainement merci. beneen yoon dinañ waxtaan merci a a def nit. def mbëri nit changer suñu mentalité vider suñu taas yi. parce que assemblée loo waral lii. waaw xam nga ni Cheikh ñu posé ay questions ay questions yu. parti bu nekk day am ay député. nga xool major yi major ma majorité ñu xool ba xam xam nañ dara ci pouvoir yi wala dara ñi ñaata député lañ am yeeyu ñaata député la am mais léegi léegi merci prochainement dinañ ci dinañ ko def yeeyu ñaata député la yeeyu am na 56 ah. bennoo am 82 yi ci def non yeeyu amul 82 wàllu waaw non ah, ah ñoom ñaan ñooy. benno benno quatre-vingt-deux am na non non ah, ah. ñoom suñ ko boolee lay lay mat quatre-vingt. kii li mu wax wax na coalition ñaari yeewi ak wàllu suñ boolee lay doon quatre-vingt yi. waaw léegi trois yi ñoo taxaw ñu xool. léegi trois yi la ñuy ñoo war a yeewi askan wi. bon ñuy. ayca <laughs> <laughs> léegi ñu dugg ci làmb. HBK ñi nga invité mën naa ni ñett ñi mën naa mën naa wax ci seen début carrière mais Moussa Ndoye yow yaa ma ko gën a xam parce que top 5 bu ñu ko waxee moom am na ci wàll ndax yàgg na dugal ay mbër top 5. top 5 dafa dugg si ci làmb dama niroog benn mbër boo ma xamee ci mbapat muy Mbiita Njaay ok bi mu dugg see di bëre bëri ay 3 combats 4 combats di daan mais ab eh, eh, Fatima. Mhm. saa bëree rek. technique bi technique gu Mbiita la bëree. Mhm. ma laajte ñu ne man mbokkam la. waaw voilà ma ne mais. te xaw ma ci dara mm-hmm. mais dama koy gis ni muy bëree mbii a bëri réflexe ah dafa amoon réflexe mm-hmm. am technique mën a bëri musaa bi mu ñëwee nag indi indi loolu man nag musaa kii dafa niroon mbii ta ndekete kam la yaraax lan dëkk ñoom ñaar ñëpp waaw mm-hmm. ah, looloo taxoon nag ma ñoo niroole la ak macha allah sunu sunu baay mbiita mooy comme li may wax rek parce que tey amul benn mbir yaraax bu mu deful si yow dara. nit ki la nit la boo xam ne icône la biir yarax damay ñaan li may ñaan mooy que dama ko ñaan les autorités autorités yi nga xam ñoo nekk yarax même bu dee benn monument nañ ko defal père Mbidi si yarax ñaan ko monsieur le maire. waaw parce que xamul tax xamul tax ma ñaan loolu. damay rappelé wu que man dama dama dama am combat mu ni may wax ni ma lii ngay def ak nii ak nii ak nii. mbër boo ko songee nii nga war a def. mbër boo ko songee nii nga war a def. am na solo mm-hmm. waaw li may wax nii mos mi xam na si dara. Mm-hmm. soo yëgee sa loxo xeex mun la loxo bii ni muy dóoree baaxul dee ko defee nii. Mm-hmm. li muy waxee muy waxee yow ci xam-xam. ci xam-xam. di liggéey di liggéeyal di liggéey mbër liggéey bu metti métti. ñu ne day day métti fii neex bu mu demee sat parce que waxu waxu waxu waxu waxu waxu jàmbaar lan wax mu nekk nga xam ne dañuy ñaan yàlla yàlla ko yàlla yërëm te xëy ko aljana di jaale doomam yëpp nag boobu ba mu amee ba mu génnee àdduna ba léegi ñu maa ngi dogoom toog ci plateau di ko jaale képp ka nga xam ne xam nga mbiita di nuyu encore une fois suma bàyyi euh, Birame Ndiaye ku gore la ah non kaay ma wax la histoire bi waaw waaw balaa ngaa yegg Birame Ndiaye moo indi mbiita Grand Dakar merci jërëjëf kon mbiita dafa ñu ànd ak maam góor gi bëri si ci benn mbappat ci guddi gi mu daan juróom-ñaari mbër. dëgg la nekkati xaritu Birahim la. dëgg la mbiita bàyyi Fass ñëw Grand Dakar. chaque jour mu ngi Grand Dakar. noonu la ñëpp yaakaar ne mbiita Grand Dakar. noonu la demee mais loolu yëpp moo ko waroon. ndaxte Birahim Ndiaye ak mbiita nii leen meloon. dafa sàmm kóllëre di Birahim dafa baax de. sàmm na kóllëre ba dégg moo fa jiitu. waaw man non c'était son même intime. man père moo ma tàggat. di gërëm laa ne da doon même bi muy jëm mag da doon simmeeku di jàppanteeg ñun. Mhm. am na benn sam benn combat bu ma daanee nga daw mekk euh, dékk ma micro man la père Mbita bëre mag la ma bëreloo. waaw mhm. Mhm. dëgg la bëre mag doon moo tax bi mi sama combat bi bi mu mujjee bëre. daa si veille bi la gaañu. boo war a xëy bëre ji te moo ma daan indi sax làmp. ak lu mu màggee dama doon wax doom yu ma jur sax yaa ma leen gën a. yàlla na ko yàlla xaraay ba ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm en 2000 2010 ah. 2010 ah, nga jëkk a bëree. le vingt non vingt neuf vingt neuf juillet. Mbour 2010 Mbour. Mbour nga bëree. waaw que si saison bi dama si bëree 4 combats nga xam ne benn match si ah. ay 20 jours la jours bi si gënoon lii bëri janvier. dama bëri le 28 janvier bëri waat le 28 février. waaw hmm. noonu laa doon bëree quoi ah, un mois un mois un hmm. mois. Babacar bu ñu mënee am combat yi. Fadima. ah bi muy gën a doon booy da doon am ay quatre combats ci benn année muy gën a màgg ay combat am di jafe un sportif un combattant mhm. est-ce que noonu la war a compétir non non man je pense que moom laa ko mhm. moom si t'es rek t'es mun la yeewoon léegi léegi léegi mën nga liggéey mhm. mais nag ku ci nekk tamit day am benn moment boo xam moom arrêt la quoi par force moment boobu la toll normalement ñoom war nañ di bëre ci année bi ay 5 6. combats 5 combats 6 combats nañ ko bëre. waroon nañ ko mën a bëre. Hmm. quand tu es en forme. benn un bon nga def 6 à 5. combats ci moom moom la la moom la père di wax man koy ñëw passage di wax hmm. naan pare naa. maa ngi si hmm. waaw kenn du ko wax. waaw man damay wax en tout moment comme ni yàlla def comme ñun ñii ni ñu nekkee nii. sorti ñu def yëpp nga naa ñu bëri gis nañ ko. mouvement ensemble lañ nekkee tey fu ñu neex dem si ñu ñii pour ak ñeneen ñi fi nekkul yeneen bëri. pour lan entraîner ne bu wàcc nii ñun si deux mois mën nañu ko bëri. si deux mois waaw si deux mois si deux mois mën nañu ko bëri. Mm-hmm. da ngeen di parce que lu mu gàtt gàtt nag duñu euh, duñu ay. ci ay professionnel mm-hmm. lu mu gàtt gàtt gàtt ay duñu ay duñu ay kii nag ay professionnel lañ tuuti. te au niveau nag waxuma la ay professionnels yii nii de. Hmm. professionnels au niveau si wàllu entraînement. wóyul c'est que làmb dafa wóyul wuuteeg euh, un peu les autres sports de combat. parce que hmm. làmb dañuy wax xarfa foofu. Hmm. loolu mooy différence. c'est un peu culturel. c'est plus culturel parce que aujourd'hui mënoo jël combat. da nga naan keneen ki nan laa koy préparer. waaw ñun bu dee yaraax personnellement moo ñun mbëru ñun làmb dañ ko jël def ko cinquième position. ñu loolu la ñu tàggat suñu bopp gala dañ ko jël def ko cinquième position. ak niweuse di taxaw. waaw cinquième position la nekk si ñun. kàlla dañ la ak niweuse di taxaw yëpp cinquième position ngeen def gala yi. ñun ñu ko wax mooy que da nga entraîné ñeme contact yéeg din te doo am combat doo am dara. ñun gars dañu doon laaj ndax dañoo ndax ndax ay avance dafa wàcc écrit bi. Mhm. ñu leen doon avance wàccul. dem nga gàllaaj. ah dem nga gàllaaj. gëm na gàllaaj. aar suñu yaram. non non non nee na mooy pour aar sama yaram si ko gàlla ku ko gëm ku ne nañ ko gëm pour aar sa yaram mais tey dama damay wax benn wax ba xam ñu ñu fàttaliku parce que ay ay kilifa ak ma ci mm-hmm. ay kilifa ak ma ci daan boo dégg ma ne gàllaaj xam nga gàllaaj tey jii bu fekkoon am na sëriñ ñaa nga xam yor nañ da doom yaa nga xam ñoo ñëpp fuuf waaw ñoo ñëpp doole fuuf man yor nañ ay sëriñ yu mag punkal ay sëriñ yu sëriñ yi may wax ni ñu may déglu mm-hmm. yor nañ am ñaankat ñaa nga xam yor nañ ay rakk yu rëy mm-hmm. wala ay doom yu rëy suñu entraîné wul ñëw si làmb ji jàkkaar ko galaaj dañuy dem toog. waaw waaw. mais galaaj la. waaw mu ne am na ñu ne di ñaanaloon sëriñ cent millions. ay ponkal seen i doom mënul a <laughs> ah. ñëw. daan kon dañu leen ñëw daan. Ah. waaye nag entraînement. entraînement mooy njëkk. Ah. mais léegi Moussa. yow perte kay des fois nit entraîné ñëw galaaj daan ko <laughs> yow xam nga ni ma la yoo ko perte galaaj daan nga xool ko ne ko galaaj moo ko daan <laughs>